jubóo ma ak moom te fu ko fekkaat naa ko ñuus loolu dafa ko ko ko fekkaat naa ko ñuus. mais la. déedéet loolu. mais loolu kon xeex la avant ñoo xeex la maa bëgg ngeen di avant ñoo xeex la. man ma mën naa woote jubóo bi ba mu jàpp confiance. ma ñëw wëlbati ko noq ko noonu laa mel dama ko nax waaw parce que su ma ko waxoon su ma indoon buudee du ñëw coteel ba damaa xëcc jubóo ba mu ñëw ni jubóo nañ nuyoo kafretaan ay deux ma noq xam noonu la xam man damay noqee noonu laa mel. waaw dama ko dama ko ah, da xam nga ku ku ne gis na vidéo yi tamit vidéo yi ku ne gis na ko dama ci leeral ku ne gis na vidéo yi waaw non parce man sax bëgguma ko yokk wax ay waxam mu am tuuti impact danga koy génne hmm. nokk naa ko ñu avancé nekk ci leneen allez vas-y posé wàllu ma question euh, euh, politique bi euh, réew mi actuellement yëgu na ku nekk ñu jaaxle di laaj ndax réew mi dina am réew mi dina am jàmm wala du am jàmm ci nga xamante ni moo di Adji Sarr ci tant membre de Jamra en tant que un show businessman lan nga lan nga a gis ñu ne sama yaay man sama yaay gynécologue la wala gynéco la sama papa gynéco la ah, mais yow yaa nit waaw xaaral ma ñëw non gi mën nga ne mën ngay bee te doo gynécologue wala wala doo mm-hmm. yaa ngi di bee te yow doo gynéco doo gynécologue du dëgg ah du duma du ma ak du ma du ma wax ci affaire sexe sexe dafa salissant salissant affaire sexe li ko ëmb bari affaire baiser sama yoon nekku ci loolu da nga koy laaj gynécologue wala gynéco yi man du ma gynéco du ma gynécologue mais expert nga Pawlish non expert si sexe bu mënoo xam lépp ñoom li ñu offensé du ma wax ci wax waxi sexe du ma ci wax da nga koy laaj gynéco yi ak gynécologue yi sama yoon nekku ci laajte ci gynéco yi wala ñuy rewle wala ñuy césarienne man césarienne yow ma man duma gynéco gynéco wax ci Adji Sarr Sonko ngir jëm Rasulullah génn ma ci euh, moo di si Jamra war nga mën am benn conseil boo xam ne yaa ngi koy jox ndaw ñi wax ñi nga xam ne ñooy agitation politique bi da nga mas a gis Jamra wax waxi waxi gynéco wala waxi sexe loolu nit te lu bon mu ne la war a ko def dina loolu affaire sexe da nga koy laaj gynécologue yi affaire soo ko Adji Sarr affaire gynéco la ko war sexe ko ak gynéco ak ah, man du ma sexe du ma du ma césarier du ma koy réewle du ma koy opéré ah, laaj ko du laaj ko sexe man yi man du ma sexe laaj ko sexe man yi laaj ko yor hôpital yi c'est ah yow fóonante ci mbedd ba xam duma la boole ñu jàpp la fóonante ci mbedd <laughs> mais jabar du fóonante kese mais nekkal góor jigéen defal defal jëlal film loo xam ne jaadoo mais ci affaire Adji Sarr ak Sonko ak Mame Mbaye loolu lépp sax ko war a laaj ko gynécologue ak gynéco yi loolu sama yoon nekk ci bàyyi leen ma ci bu ma ci ma juum ma du ma juum ci affaire sexe sama yoon nekk laaj ko ñoom ñu ñoom ñu jox ci affaire sexe laaj ko gynéco yi waaye la moo tax li ngeen a posé question doo ko laaj gynéco yi yéen Pawlish yow yaa taxaw fii wax ni yow Macky Sall nga àndal yaa taxaw wax donc boo nee Macky Sall nga àndal ko pour nga xam ne man damaa intelligent damaa muus. Mhm. ki moom dëkk bi moom lay àndal parce que moom dëkk bi. Macky Sall est ce que itam ma wax la Macky ko gis télé laa gis barki gis ku ñëw ci Macky man damay wax ni leer. Mhm. nit bu nekkee président da ànd moom président suñu borom moo koy def jaam suñu borom moo koy def doomu aadama. Mhm. est ce yow yow yaa ngi déewante ne bu dee da ngaa bëgg juumloo ma ba ma juum wax ci lu bon xam naa di ko tëgg affaire bu affaire nguur la man tey soo waxee Macky Sall lu ñaaw exemple man wax sama sama yaay màgget la wax ci Macky Sall lu ñaaw léegi man léegi man ñu jàpp ma yóbbu police fu ma jëm dama bëgg yéen ngeen intelligent Macky moom réew mi moom lay ànd ba àdduna bu fa bu follee ko ma ànd ak wax ci moom lu parce que président suñu borom nguur yàlla ko defal doomu doomu yàlla ko defal jàmm Macky Sall c'est normal ma war a ànd ak parce que nag du wax ci moom lu bon du wax lu ñaaw ku ne xam ne ni man kasu yàlla lu baax lay wax ci moom ba ñu jëlee ko fa ma waxaat keneen ci lu baax du wax ci Macky Sall lu ñaaw gisuma ko ci moom lu baax parce maa ngi ci am ay visa yàlla may sutura yàlla gi ma ci dimbali moo tax ma gën a xew amaan avant Macky Sall xew ma woon te ñun ñi ngi soog am président am jawru sénégalais kan la Macky Sall mu sa gis mu am président mu am jawru sénégalais su président yi ñoom Senghor ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Abdou Diouf ñoom ñoom ñoom Jorkon Makalo yor ñoom Hercule wala ñoom bokkuñu ci ñoom waaw ay ñoom kii ñoom ñoom ñoom Abdou Diouf ay Lay Wade ah ay Trump ñoom ñëpp ja ñoom ñëpp jabaru kii la ñun ñu am jabaru président am jabaru sénégalais doole ànd nag moom mi am jabaru sénégalais man de Macky yow laay àndal moom soo fondé ko ma ànd ak keneen ak keneen waaye moment bi moom laay àndal dama ànd ak keneen euh, ñu gis euh, Jamra génn di wax ci li nga xamante ni moo di phénomène bi ñu gis muy anytime euh, ñu gis ay ay influenceurs yu bëree bëree bëri ñu ngi def ay anytime di wane seen i becco ñii di wane seen i awra en tant que membre Jamra yow yan mesure nga ci bëgg a jël pour loolu de parce que mënu ma wax ci awra affaire awra dara parce que sama awra mën na génn suba parce que nit dox boppam ba ma bokkee Jamra yàggut te man sama awra mën na nekk ci mbedd bi mën naa cee wax léegi ñu génn ko damay def nag te man leen nag mi ci mbedd bi damay deman en fait man waaw parce nit laa xale laa li nit ñi def loolu laay def oh, mën nañ ma ko génn suba parce nit kese la nit kese la te nit ku ne nit la xaaral affaire awra la wax savon da koy jaay da nga koy wax ci jaay savon sooy saabu waaw moom moom saabu waaw moom saabu lay jaay da koy jaay da nga koy laaj jaaykatu saabu yi man jaayuma saabu jaayuma diw jaayuma akañe jaayuma néoprosène jaayuma eskil laay da nga koy laaj ñiy jaay laa da nga koy laaj ñiy jaay saboo ay maa jaay saboo jaay ko ko jaaykatu saboo yi ok ko laaj moroom ñi jaay saboo laaj man jaayuma saboo jaayuma eskil laay jaayuma top foor jaayuma akañe xaar ñu waxtaan affaire sexe yow dafa am man trop yaay comme na ah? affaire sexe la dama ñëpp xel mënu ta jàpp ñaar da ngeen def nang après mënuma di wax ci affaire

parce que dañ maa yedd maam Ndiaye Sow mosuma koo gis te mosuñoo gisante te te duñ gisante wala bu ñu gisante danoo daje ko parce que li mu am moom la am boo ma da nga koy laaj jaaykatu savon yi man du ma jaaykatu saabu da nga jaay diw ay no projet ak ñi def style light li tax diw du ma ci offensé sama jël looloo ko rey diwoo ko rey waaw ci ci gaañu te xam naa ne ma xamoon naa ne day gaañu parce que mënoo jël diw diw nga xam ne di koy togg def ci lépp nga koy diw say tànk sa tànk di ubbeeku nga naan réew la tu réew yaa ngi opéré sa sama yoon nekku ci ay diw man maa wax sama sama gel di ko rey diwoo ko rey ci gaañu te man xamoon naa ne de xamoon naa dee parce naa xam naa ne moom ñu ngi safara parce que looloo cagoo ah waaye waaw xel mën ta da ngeen wax nanga pour mu mën leen déglu ñëpp da ngeen wax de maa ngi yéen ba fajar da ngeen def nànk ba nànk sama problème ak bi laay wax ci ci gaañ yal na ko yàlla xaare àjjana mais gëm naa du dem àjjana parce que dafa bëggoon ci ay yoxe ba yaay comme la naa léegi yaa ah, euh, sa li wax diwoo ko rey nooy gisee diw jàngoo école xamoo nuñ ko defaree xamoo nuñ ko bindee xamoo nuñ koy toggee nga jël diw jël diw nu muy amee neew diw nu muy amee ay diw nu muy amee ay ay xoropole ay jar diw nu muy amee ay fromage ay meew ay loo xam diw lu ay meew nga diw ko sa tànk di nga xees sa tànk sa tànk yaa ngi sa yaram te xamoon yaa ngi opéré sa yaram li der bi li muy laal ko yëpp yaa ngi sa yaram mi ngi mel ne xar mu ngas ni ñu koy ni xar mu ngas nit mu ngas ni yaram bi di roccee ko mi ngi mel ne nga jël ginaar di ko wës ginaar xoolal bu ñu tàngalee ndox boo demee deret bi dënk bi du wàccee ko ñi ñi ñi ñiy jënd diw wala ñuy koo diw nee na xool diw yu baax yi ngeen di jaay jigéen ñi yéen a ngi rey seen bopp yéen a ngi gaañ seen bopp doole ji diw nu mu diwoo xaw fu mu diwoo ngeen dégg ko bu di ko seen gisoo jigéen ñi moo tax jigéen ñi xeet xool yaram cër bi yaram yaram day xasaw wax xool la ñuy diw yëpp seen yaram day xasaw wax xasaw wax xasaw bar bu sawee barke alxuraan xool cër bi diw bu sawee nuy mel barke moo xam mooy raw mooy raw saw bëy daw xasaw xoola xale bu teint noir bu sawee sawam day xeeñ parfum ay ay uut xoola jigéen buy diw xoola jigéen bu sawee te seeni seeni seeni saw noonu lay fooree ni diw bi ubbeekoo seen taat noonu la ubbeekoo seen taat xool ne ni seen saw nuy foore ay rat tat tat tat day mel ne mbalka mu toj yal na yàlla mu jigéen bi diw te xamoo diw fu mu jógee te xamoo nu koy jaayee ñu waxtaan nag dañuy waxtaan da ngeen ma bàyyi ñu waxtaan affaire diw parce que parce yi affaire verte da koy laaj gynécologue yi parce que xaw ma affaire ah. bu ma ci avancé du ma ci d'accord yow wax naa ko sax femme wala ko. xaaral ma ñëw waaye bu tudd ma turu kenn bu leen ma ah, indi bu leen ma indil parce que man man diw na kenn di wax waaw na kenn di wax ma leen déglu. Euh, borom a def la affaire yàlla ba eggu ma ci yàlla man damay wax affaire affaire da nga koy laaj man eggu ma ci xulluwa affaire yàlla la da koy laaj man yàlla moom affaire mbiram du ma ci offensé man ci affaire sama bopp laa sama sama ah, temps sax ah. dama ne diw ñiy jaay diw ak ñiy jënd diw ñi man damay dimbali man damay dimbali ñi ñi ñiy jënd diw te xamul ñu koy jëndee ñu koy defar aussi xamul nu ñu koy defaree booy defar diw da koy xam da koy jàng xam ne lii diw lan la des fois billaay wallaay jigéen buy diwu pour romb ko ci ci duus bu sawee nga xool nuy mel soow yi day zone te te seeni saw moo raw mbalka bu toj ratatatata saw ko saw koy diw noonu lay diwoo xoola xale bu diwul sawam cas kay nii cas parce que parce que seen dara ubbeekul ni seen réew yi ubbeekoo noonu lañ seen taar yi di ubbeekoo ñi dimbali leen ma ñiy diw nañ xool li ñuy diw lan la nañ xam li ñuy jaay ci diw lan la dëkk baa ngi toj xale yi xale boo ko mu naan day ñaral ñaral yaa ngi opéré seeram te xam ne yaa ngi seeram loolu loolu dër boobu di génn ci yow dër boobu di ñaral la ñaraloo yaa ngi opéré seeram te xam ne opéré seeram yal na ci yàlla musal man nag damay damay wax képp koy jaay diw wala képp ku nekk ci diw xool li ngay jaay lan la bu la xaaj bi bu la xaaj faxatal bu la xaaj xëcc ba ngay rey doomu ajjaba xale yaa ngi dee rek volé mënoo rey xale yi léegi diw a ngi rey rek diw yaa ngi xal da ngay gis diw noo ci defee meew ba ci def ay laax dañ ay laaxa ki ay ay ay ay soow piir ak dañuy jaay diw ba duñ xam ne lu ne lañ ci dugal ay macaron ak ay ceebu ay kaldoog lu ne lañ ci dugal lu ne te nit ñaa ngi koy diw see te nit ñaa ngi xees te xeesoo leen de yëri ngi rey seen yaram yéen a ngi rey seen bopp xool leen li ngeen di diw lan la ku génn jaay diw ku génn dafa diw am na xaalis na lew yéen a ngi na lew mais xool yéen a ngi rey doomu aadama te xoolal nit koy sëy bu diwoo foo tëdd foo tëddee rek sa jëkk darab bu weex foo ba dafay bàyyi sa sa deru yaram bi xub loolu lu ko gën a salte loolu lan moo gën a salte loolu xoola xale boo xam ne diwul foo tëddee sa darab day set sa ñegedaay day set sa lépp sa xool xale bi diw buy buy tëdd day mel ne ko ñu baax na day lëma luy looy nekk sa jëkkër di lëmasu di so ay mbuusa ki lëmasu mais loolu ban sens la am ban sens la am leen suñu borom mooy maye tee yàlla bu la maye tee blanc nga xam ne moo la ko may bu la maye tee noir yàlla moo la ko may ñu bëgg a rafet ji ci ku wër bëggul diw am na ko ñu bëgg lu salte nag dañoo bëgg diw réew lu ko gën a bon réew nag mu naturel dafa neex moom réew bu naturel diw xoolal réew ku ñuul lu muy rafetee day rafet réew kuy xeetal day ubbeeku mooy raw yoonu jàng na xale yi téye seen yaram yu ñuy yàq diw yaa ngi yàq dëkk bi waxuma kenn nag kii jaay diw yaa ngi ci embarqué xale yi jënd diw nañu xool yi ngeen jënd. loolu laaj ko laaj laaj laaj ko ñuy jaay sa moom. allez vas-y laaj leen ma maa ngi commencé sonn. xool ñu ji comme da nga ay jeunes yu bëri di ah, sa yéen kilifa diine yi xam naa su ma génnee gars ma saaga waaye ma saaga baal naa ko tey kàddu yooyu noonu soo ko dégg nara lay